jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a bàyyi xel ci seen site bi di senevision point com ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun mbokk yi seen na Arouna Cissé moo nekk ci kàddu gi ci wàllum caméra beeg montage bi Seexuna Kan moom moo fa faree ñu ngi fii nga xam ne nag moom moo di ci daarul moxti ni ngi koy defee boobu ba léegi ginnaaw bi nga xam ne jàmbaar ji di sëriñ abbas mbàkke daal di wuy ji borom ñu ñaan sunu borom yokk ay leeram ñu ci barkeem eh, ki ko fi wutu di sëriñ antañang ñu ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te dolli ko wér mbokk yi nag ñi ngi toog ak Serigne Abdou Mbacke moom Serigne Cheikh Khady Mbacke bi nga xam ne moom it ñu ngi koy jooytu noppeeguñu niki sax juróomi fan ci weeru janvier yi ñu dëgmal lañ ko fa yéenee fàttaliku fii ci Daarul Moxti waaye fépp ci àdduna bi fépp fu mun a nekk rek mu daal di koy ñaanal kon Serigne bi rek ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la dalal ci Senevision ginnaaw bi ñu dalalee fii ci Daarul Moxti yan kàddu ngay yëkkati rek ginnaaw bi sa wéyjur bu baax bi dëddoo di Serigne Abbas Mbacke te kenn ku nekk xamoon sa digg ak moom yéen kàddu nga ci yëkkati. aasubillahi mina la rajim bisimilahi rahmaani rahim euh, gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xanaa di ñaan yàlla rek sëriñ abbas euh, yàlla wanale ko magam yi ak waajuram ba ñu bokk aw dëkkin ci aljana ak sëriñ tubaa loolu lañuy wax euh, di ko jaale itam sëriñ ba sant ñag mi nga xam tey moo toog toogaayu borom daaru moxti di ko jaal itam sëriñ Moustapha ab sa moom sëriñ Mourao Ball ak njabootu boroom Daaru Muxti yëpp di ko di ko jaale itam sëriñ Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba bis bi nag bis bu metti la nag waaye bis bu baaxoo am la ndax lii moom mën na ñàkk te yàlla daf ñu bindaale ak moom waaw ku fi ñëw rek bis dina ku juddu ñu ngénte la rek bis dina ñëw ñu defal la nii ndax bu seetee ca waajuram borom Daaru Muxti seet ci ñi nga xam ne la bokkolon borom daaru musi ñu bari jitu nañ ko seet ñi nga xam ne fi nekkoon borom daaru ci ba mo mu ñew fekk def na magam ya defoon ak mbokam ya mom xamoon na ne bis bi bis la bo xam dina ñew na ko bàyyi xel lim ci def lim fi def ci ay at yagul waye ñepp sérel nañ ko ak maandu ak téew lamiñum ak daa sok njabootu borom daaru musik yep ma ngi fàttaliku ane bi serigne Cheikh Xaat lako ane année kero bi mi gisee ak serigne man mako jeli kërëm mak abdourahman Diop andi ko ci serigne mu waxtaan ak mom bi mi ñëwa ñëwaat daaru sëriñ bi làqu na kër bi ñëw fi ci kër gi mok serigne seen waxtaan man na waxtu man nag fekkewuma waxtaan ndax biñ toge ñom ñaar dama genn ci biti bañ waxtaanee ba àggalaale serigne abbas mo taxaw ci buntu bi ni ma Abdou ñëwal parni bi mu talal ay loxom sëriñ mi ñaanal ko jox ko ay marakis marakis ma ko teyel bañ ak kërëm yoon wo la mujj gis ak sëriñ bi ñu tek ci ay fan ñu gam ba paré ma ànd ak euh, sëriñ Ousmane mu sëriñ Cheikh Hadi ak sëriñ Mahmadan mu sëriñ Cheikh Hadi ak maam tiarno mu sëriñ Abbas di doomu ak Abdourahmane Diop ñu dem fekk ko ci meretu ci tol yi mu defal na ngan gu neex a neex bañ añee kër ba dafa ñëw doxal bopam ba ci bu ni ni ba añ ngeen baax ñu ni ko waaw mun seen ñew bi xàmmiwuma wala suñ sa xaar jógewoon daaru gana sim ñun bañ fa joggé samedi dimanche altini talaata ci gudd la sëriñ si xadd wàcc liggéey yàlla dogal na yeen man mi mako wo bañ bëtt sété ci ba ci suba mako wo fekk waroon nañu dem ci sarax so xamni ne bi ñu fa yabal man ak njabot gi yépp bima data joggé sama kër la ko wo ni ko sëriñ bi làqu na mu jóge mu jóge ca tool yi ñëw bañ demee ci sarax soosu ba ma ñëwaat sama kër bañ añ ba pare ñu war a dem kër sëriñ ba euh, Abdou Khoudoss pour waxtaane mbiri sëriñ bi bi may toll ko ñu këram laa ko sin muy toll koñu ñu kër sëriñ Cheikh Abal di di ñëw ma taxaw ci koñu këram xaar ko ba ñëw ma ànd moom ba dugg ci biir kër ni ko nag comme ñëw nga yow lañ doon xaar euh, booba la woote boroom daaru ba ni mu fi jógee itam wax dëgg yàlla lu rafet rek la fi nekkoon ak def lu baax li ko sëriñ bi daa seer nag muy sëriñ seexaat yi nga xam ne daanaka wax fu mu toll dafa naa ne Abass fi waxee lii moom kenn du ko dégg ndax téye gum téye woon aw làmmiñam Baye Cheikh daana wax ne ma noppem ko ak maandu gi moom yàgg na ci moom. mu nekkee gone it noonu la meloon loolu ñaar yi itam bu ci ci kilifaam Baye Cheikh Khady laa dégg mu seeral ko ko te bu ci ne ba mu koy wax maa moom rek a nekkoon bu ko waxoon leen loolu noonu itam du ma ko waaye lii la ko seeral te dinaa leen fekk ñoom ñaar ñëpp xanaa kay di ñaan rek ki nga xam ne moo ko fi muy sëriñ Bassirou Anta Niang yàlla yàggal ko fi bu baax lépp loo xam ni magam ya naaloon nañ ko te te jotuñu ko def waaw mu àggale leen ko ba naal yëfi boppam loolu rek lañ koy ñaanal waaw ñun nag. Euh, Bassirou it bëggoon nañ ay kàddu tuuti ci moom rek kàddu yu seere waaw sëriñ Bassirou moom man li ma xam ci moom nit ku woyof la nit ku bëgg nit la. nit ku ku ku yër téere yi itam ndax bind na ab téere ci waajuram borom daaru Muxti waaye nit ku woyof la woyof nag mooy tegtal la ci nit ki nu mel nit moom ku la mën a jur rek <laughs> yonente bi bu la juróon te woyofa amul ñu benn njariñ waaw woyof daal mooy li nga xam ni moom lañuy ñuy séentu ci nit ku baax moom lañuy yaakaar ci nitu yàlla waaye suñ bas nag man xam naa ne ku woyof la ku bëgg lu baax la am ñewant ci nit ñi la loolu xam naa ko ci moom te mën naa ko seere te yàlla rek tax jeexale rek mooy bis bi sa wayjur euh, làqu ginnaaw bi ku ne ñëw na fi waaye kenn ku ne xam sa diggante ak euh, njiital passé président Ousmane Sonko moom it mu bàyyi ay yitteem yëpp ñëw jaale si jaale si la sa wayjur woowu ban yëg-yëg nga ci waaye yëg-yëg bi da mooy ni fi ñëpp ñëwee rek xam nga nit moom euh, bu leen yàlla booleel lu mu am rek bu dee bànneex bu dee naqar da ngeen ko war a bokk xam na ni xalifa borom daar jóge na fi maanaam mu ñëw fi siyaare si ko siyaare ko njabootu borom daaru ñëw fekkaat fi yeneen xew-xew mu dem ci defal leen ko loolu dañ koy rafet lu lu baax la noonu la koy defee ci yeneen kër diine yëpp itam waaw loolu li mooy li nga xam ne moo jaatu ndax yaakaar naa xalifa borom daaru bu fi jógee képp ku ko mën rek war ngaa ñëw siyaare ko siyaare ko ki fi nekkal borom daaru siyaare ko njabootu borom daaru te loolu itam yàlla lu ñu miin ci barab bi la hmm. sëñ ñu ngi lay sant bu baax di la di la di la gërëm. yéen kàddu xanaa di la sant bu baax rek di la fetliwaat sama kóllëre ak yow ndax suñ Fallou moom demoon nañ ñoo xam ni maa moom yaakaar naa di la ci ump bariwut xanaa ñaanal la rek yow mi nga xam ni yaay taawu kër ga yàlla téeñal la lépp lu suñ Fallou yéene woon nga àggaleel ko xam naa la ko yàlla mayoon moom lu ñuy jàng ak ak jagle la woon waaye nag jàngal ci li mu fi bàyyi rek. Eh, boo boo ko déggee rek dana la jariñ waaw te sa sa baay moom ku amoon principe loolu ku amoon diine la lépp loo xam ne dëppoowuloon ak sariya ak ku taalibe kenn mënu caa gis fàllu kenn mënu ko caa seen kon nag awal ci tànk te roy ko ndax man am na lu bari loo xam ne xam naa ko ci moom wax naa ci ab télévision bañ war koo jël mu ne ma kooka suma sañoon du ma fay weer te dafay liggéey ñu di ko fay waaye am ay principe ak xam ne kooku xëy na la muy amee teraanga xeeb na ko loolu tax mu ne moom kooku bu ma sañoon du ma fay weer waaw yal na yàlla dolli ay leer fa mu ne man nag sama xarita woon daan nañu waxtaan bu baree bari itam yaakaar naa dara umpul ci waaw royal ci ay tàngam di góorgóor rek yàlla moom ñëpp la fi nekkal jërëjëf kon mu nekkoon kàddu yi Serigne Abdou Mbacke moom Serigne Cheikh Khady Mbacke fii ci Darou Mouhty eh, ñu ñëwoon nag eh, seet si ko ginnaaw bi nga xam ne Serigne Abbas Mbacke wuy ji na boromam ñaan suñu borom mu yokkay leeram taas ñu ci barkeem comme ni mu ko waxee ci bisub eh, jàmbaar ja di Baye Cheikh Khady yi noonu rek la fu waaye mën a nekk rek na ko fa ñaanal bisub ku màgg nag sëñ Fallou Cissé neewoon na ya ca war màggal ko. baril ci ay ñaan rafetal sellal ko kon noonu nag dafa waaye nekk mën nga faa defee loola kon noonu la ko sëriñ bi daal di santaane ñu àndoon ak sunu xarit adjudant jaxate bu commissariat Ndamatou kon nag ñi leen sant bu baax di leen gërëm seexu naa kan moonu nekkaloon ci wàllum caméra bi ci kàddu gi seen bu Kaaruna Cissé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.